jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo mi FM 97 point 5 Euh, ñoo ngi leen di euh, nuyu bu baax a baax euh, yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo bi suñu mbokk auditeurs yi ak sunu mbokk auditrices yi mbokk yi xam ngeen ne samedi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen ànd ak Abdou Khadre Seck ci seen émission pencum réew mi tey nag ñu daal di am benn invité bu tudd Abdoulaye Mamadou Guissé moom nag mu jiite parti bi nga xamante ni nag moom mooy MCCS Fulla ak Fayda caada euh, jiite tamit euh, kuréel gi nga xamante ni dafa yëngatu ci lu jëm ci wàllum caada euh, di Omart moom la ñu invité tey fas yéene waxtaan ak moom ci ponk yu bëri Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu technique bi Abdoulaye Mamadou Guissé Rewmi FM ma ngi lay nuyu. moo asalaamaaleykum mbokk auditeur ak auditrice Rewmi FM maa ngi nuyu ku nekk si turam ak santam di wax nag balaa ma tàmbale maa ngi ñaan jàmm si réewu Sénégal. mais aussi maa ngi ñaan yàlla ñëpp ñu fi jóge yàlla yóbbu leen ci àjjana ñu nekk ci kaso bi yàlla génne leen ci euh, mbas mi tamit yàlla teggil ñu ko di ñaan yàlla aussi Pape Bouba Diop mi nga xam ne mhm. euh, maanaam gaynde la woon servir son pays servir mhm. Sénégal euh, jëriñ am loo xam ne apporté na ko Sénégal loo xam ne histoire dootu ko dootu ko fàtte ba tax tey mhm. mu nekk ci musée musée musée du football sénégalais tudd turam loolu yëpp euh, ñu tuddee ko ko loolu yëpp euh, may wax ne tey moom il fait partie du panthéon di football sénégalais. Mm. ma koy euh, ma koy jaale mbokkam di ko ñaanal yàlla yàlla yóbbu ko àjjana yi gën a kawe ci barki se Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam maa ngi remercier Djilio aussi ci invitation bi. jërëjëf euh, Abdoulaye euh, Mamadou Guissé ñoo ngi nuyu madame Guissé yëpp. Ndeye Diop Ndeye Diop madame Guissé ak Laye Makhtar waay. <laughs> Laye Laye Makhtar Ndeye Diop ñoo ngi koy nuyu. waaw ak ñi ñuy déglu ñëpp. yow Ndeye nga gën a miin quoi. Ndeye laa gën a miin <laughs> Guissé. Abdoulaye Mamadou gisee euh, dellu nañu am mbégte euh, dalal la fii nga xamante ni mooy ci réew mi FM euh, pencum réew mi doo fi gan ñëw nga fi ay yoon yoon ñoo ngi am mbégte saa sunu la invité rek nga bàyyi sa yite ngir ñëw wax ak ñi nga xamante ni ñooy askan wi fi nga xam ne fi la ñuy commencé nag waxtaan wi yow dafa am ñaari casquette yoo xam ne moom nga moom nga ame benn casquette bi te nga jiite kuréel gi nga xamante ni moom mooy OMART mu jëm ci wàllum caada waaye tudd euh, MCCS kon mu nekk ñaari casquette yoo xamante ni tey waxtaan wi mm-hmm. euh, dafay am ñaari euh, pàcc pàcc bu njëkk bi ci wàllum culture la ñuy wax mm-hmm. beneen partie bi ñu wax ci lu jëm ci wàllum politique mm-hmm. li tax nag ñuy wax ci wàllum culture mooy fan yi ñu génn gis nañ ne danga doon bind di ŋàññi kuréel gi nga xamante ni tey moom mooy SODAV di sàkku Euh, ñu daal di euh, auditer euh, xaalis bi nga xamante ni moom mooy dugg ci ci ci SODAV. Mm-hmm. ñu teg si tamit ay ay fan wala ay ay bés ñu gis njiitu réew mi tamit di Macky sàll ci ab mm-hmm. conseil des ministres. Mm-hmm. mu sàkku ñu daal di koy auditer kër goo nga xamante ni moom mooy SODAV. ci biir loolu sax yow waa SODAV porté woon nañ la plainte. ginnaaw loolu tamit yow nga dem OFNAC ngir OFNAC lëmbat kër googu nga xamante ni moom mooy SODAV loolu moo tax tey ñu invité la ci fi ñuy njëkkee nag première question bi mooy yow da nga ŋàññi ne SODAV niñ ko yoree baaxul mhm. ginnaaw bi si la njiitu réew mi sàkkoo mhm. ñu auditer SODAV mhm. euh, lan moo ci saxalaat ci loolu waaw d'abord man damay remercier damay saluer euh, cette décision maanaam décision bi njiitu réew mi jël pour mmh. auditer euh, def évaluation institutionnelle et financière euh, ndax lu tax ma koy rafet rafetlu mooy ñun dañoo toog ay at di ko xeex di xeex loolu ndax nit ñi il faut ñu rappeler leen ndax OMART da di kuréel boo xam ne euh, liggéeyam mooy saytu ak xool nu nu ñuy doxalee culture bi ak ak politique culturelle ci Sénégal ak pays africain yi donc muy organisation boo xam ne dafa ab politique autonome maanaam dundeewul xaalisu état ay ay ay ay institution ñoo ko ñoo ko ñoo ko yore donc muy xool nu culture bi di jëmee kanam di défendre aussi intérêt acteur culturels yi ak artistes yi mais loolu bi loolu amee ñun ñu remarqué Sénégal chaque année euh, presque un milliard et quelque dina dugg SODAV SODAV société de gestion collective la so SODAV société de gestion collective la boo xam ne euh, le le vingt vingt cinq janvier deux mille huit la ko le président Ablaye Wade euh, mettre sur bi mu ko mettre sur mu remplacer BSDA mais BSDA société la boo xam ne woon état bee ko yore état bee fal. ku ko neex mu yore ko mooy mooy dugal di génne lu ko neex moom mooy jox xaalis si biir ne fay leen artistes yi malgré que société boobu da doon dem di collecter maanaam droit d'auteur mm. ay fonds droit d'auteur maanaam bu ñu tegee ci li woy si rajo wala jàngkatu xaside wala ñuy defar tableau yi wala ñi nga xam ne ñu ngi bind ay taalif ñu leen di fay léegi ñun Omart ñu wax ne en 2003 te loolu yàgg na 2003 ñu ne le nañ ko def société de gestion collective maanaam société boo xam ne ñun ñii ñoo ko moom man ndax man SODAV laa bokk dam ci am wàll société la boo xam ne dam ci am droit maanaam dam ci am sama part ci biir société bi kon man ayant droit la man moom Mamadou Guissé producteur la nekk poète écrivain ma am ci wàll mais man kenn musuma fay wala bu ñu ma fayee benn yoon wala ñaari yoon lañu lay fay waa léegi euh, ñuy doxal ñuy dox ba am Macky Sall nekk président de la République en 2012 Youssou Ndour laaj pour nekk ministre da culture bi mu nekkee ministre de la culture benn benn décret la Youssou Ndour soumettre président de la République mooy BSDA bii nga xam ne dañ koy changer pour def ko SODAV dama bëgg nga jëlee fa ki fa nekk mooy jaabi bi nga tegal ma fa Mounirou si mi nga xam ne fekkee ma ci boole mooy coordonnateur bi loolu mooy alal bi nekk foofu man léegi man Youssou Ndour maa koy maa ko yore. conflit d'intérêt. conflit d'intérêt juddu léegi mu dindi mu mu dindi jaabi bi muy magistrat la jaabi si bi magistrat la mu indi un quelque quelqu'un ci parteem muy fekk ma ci boole muy Mounirou Sy. Mounirou Sy tamit juriste la. juriste la. mais Mounirou si dafa far ndax foofu la far. Mhm. bu Mounirou Sy ñëwee toog tuuti xam naa li ñu bëgguloon def loo Mounirou Sy yenn yoo xam ne nangu ko ñu xeex Mounirou Sy ci diggante bi ñu changé BSDA def ko SODAV benn ndaw bu tudd Angélique Diaban euh, artistes yëpp créateur bindkat yëpp voteel kooku kooku jiite jiite ñaari at. Aziz Dieng bi fa ne woon nga xam ne ñëpp xam nañu jiite Sodav jite Sodav société bu bees bi kooku mhm. euh, nekk kooku nekk PCA bi moo mu jiite ko mhm. parce que léegi directrice day dem mais PCA mais PCA bi moom mooy personne morale bi ba pare ñu nommé un gérant mais gerant boobu dañ ko def sur appel à candidature internationale mooy Bouna Manel Fall kooku dañoo woote ci àdduna bi yëpp kan moo am diplôme yu mun a gérer yi ku mun a gérer Sodav Bouna Manel di sénégalais ñu jël ko ñu tànn ko léegi bi ñu ko tànnee euh, Aziz Dieng waroon def passation service ak Angélique Diamba Aziz Dieng defu ko Aziz di yéexal di yéexal ba ndaw si démissionné ndaw si ne moom xamul lii parce que lu waral lool mooy ministre bi fa newoon tamit dafa àndoon ak Aziz Dieng que ministre bi Youssou Ndour toogee bi Youssou Ndour jógee dafa indi Aziz mbay Abdoul Aziz mbay Abdoul Aziz mbay boobu nekk ak waa kër Youssou Ndour aussi même chose la donc ñoo foroon ak Aziz ndaw si démissionné comme PCA nee na moom munu nekk PCA boo xam ne amul passation de service ak assisien ndax assisien moo doon PCA BSDA léegi bi ñu defee loolu ndaw si démissionné ñu demaat assemblée général boo xam ne ñoom. ah ndaw si li tax mu démissionné dafa xamul euh, état des lieux. xamul état des lieux joxuñu ko post liggéeyul maanaam artistes yoo ko fal mais mais mais mayuñu ko ñu toog. ndax ki ko waroon may mu toog ndax euh, BSDA dafa am directeur ak ndaw si bu ñëwee ñu remplacer BSDA def ko SODAV. mais kon ala kulli alin moom kii ki jiite léegi SODAV moom buy def passation de service da koy def ak Aziz Dieng ok léegi bi mu ko defee Aziz Dieng bañ mais Mounirou moom dem na tëb na ndax léegi nekkatul BSDA te mu Mounirou aussi lu tax mu tëb mooy mu ngi doon jokk mu ngi doon eh, joteek waa kër Youssou Ndour yi bien vrai si ñoom la foroon mais daf moom li ñu ko santoon daf ko bañ a def ndax moom daa bëggoon alalu SODAV bi dem ci ar alalu BSDA dem ci artistes yi léegi bi loolu weesoo euh, euh, bi loolu weesoo ñu fexe ba ndaw soo si démissionné Angélique Diaba léegi ñu dem assemblée générale boo xam ne katam mi ni la maanaam kenn yëgul ñu dem def ko euh, fal Ngoné nduur maanaam ñu ut seen propre corps électoral maanaam ut ñu leen di votel ay Ndiaga Ndiaye jëlee ko fu nekk ñoo xam ne duñ sax ay artistes ay ñoo xam ne si fekkee ma ci booleek leneen leneen mais ñoo ñu ñëw ñu fal Ngoné nduur Ngoné nduur toog mais jii li Ngoné Ndour ba ni ma lay wax nii def na ñeenti at. Uh-huh. SODAV amuñu carte de membre. yow léegi man nan naa mën a bokk société te amuma carte membre te yow nee nga. est-ce que est-ce dem nga pour. wut carte membre dem naa dem naa laaj naa leen sama carte de membre ñu bañ d'ailleurs sax damay profiter sa antenne pour wax la ñun dañoo an dañoo dañoo fas yéene def sitting buntu SODAV pour laaj suñu carte de membre. mais est-ce am na ñu am carte de membre aussi. mais kenn amul benn artiste amul. même ñoom euh, ñi leen jege tamit amul. amuñu. léegi nan la société di doxee boo xam ne société boo xam ne lan lañ lay reconnaître amul benn carte buy firndeel mais loolu mais président de la république Macky Sall bi mu ko yégee dégg naa dafa xëm sax parce que dafa ne loolu mënta nekk si juróomi ñeenti at ma maanaam juróomi milliards dugg na ci SODAV léegi xaalis boobu kan lañ ko jox kan lañu jox xaalis bi parce que bu ñuy jox nit xaalis dañ koy jox ñi nga xam ne membre lañu man tey membre laa aw ma carte Pape Cheikh membre amuñu carte Idrissa Diop membre amul kat Fallou Dieng Pape Ndiaye coppet ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak artistes yi nekk ñoo xam ne ñu ngi fii ay artistes plasticiens ak ñëpp. léegi léegi. boo xoolee euh, actuellement nii ñun li ñu li ñu xool li ñu gis mooy xëy na SODAV Youssou Ndour lay fay ak Prince Art parce que Ngoni Ndour moo jiite Prince Art. da nga bëgg wax ne artistes yi nga xamante ni tey ñooy liggéey ak Prince Art ñooñu la ñuy fay. mais loolu ñun loolu la ñu gis parce que xam nga lu tax parce que ñun dañu gis ñiy kaas ñëpp bokkuñu Prince ku bokk prince art kaasul gisuma ko kaas ku nekk prince art di kaas. Uh-huh. gisuma ko te ñoom ñoo ñun ñëpp ñoo ci yem. léegi euh, Ngone Ndour euh, tey moom mooy. Euh, président présidente conseil d'administration bi. waaw lan la nekk ci prince art. moom mooy moom mooy mooy directrice bi. mooy directeur Prince Art. Prince Art te moom moom Youssou Ndour ñoo ko moom. parce que Prince Art xam nañu structure Youssou la. waaw léegi tamit Prince Art nan la nekk benn structure boo xamante ni tey dafa yëngatu ci wàllum. production wàllum production. waaw Ngone jiite ko. Mm-hmm. Youssou Ndour euh, bokk ci. Mhm. Euh, ba pare. Ngone Ndour di nekk tamit euh, présidente conseil d'administration. mais loolu moo tax ñu ne. bu Sodaaf conflit d'intérêt la benn. deuxièmement biñ moom bi mu def bi ñu defee seen assemblée générale boobu boo xam ne en catimini la boo xam ne kenn validé wu ko parce que man am naa raison yu tax ma ne kenn validé wul assemblée générale bi parce que boobu dañoo woo Abdou Latif Coulibaly mu ñëw jiite assemblée générale te Abdou Latif Coulibaly est en mèche ak ñoom parce que Abdou Latif Coulibaly ñëpp xam nañ ne li mu warul njëkk a def moo Ngóone nduur bi ñu toogee mooy da ngay créer da ngay teg commission de contrôle permanente bi mooy xam nga mooy lan mooy société bi munul dox te amul commission de contrôle permanente bi composée de la euh, de l' inspection général des finance muy état Sénégal composée de la cour des comptes et composer du ministère de la culture ñetti membre yooyu dañoo war a ñëw composé commission contrôle permanente di saytu doxalin SODAV fii ba juróom ba ñeenti at yi jeex waaye loolu amul. léegi nan la état bu Sénégal tamit mën a toogee at yu bari yoo xamante ni saytuwuñ kër googu ba président Macky Sall. mais loolu loolu loolu loolu loolu fotu ministre de la culture yi la fotu ki ñu fal la. parce que tey jii moom Ngone Ndour avant muy ñëw Bouna Manel Fall la ñu jël comme directeur gérant euh, si appel à candidature internationale Bouna Manel bi muy egg see toog li mu njëkk a def. dafa bind ministre la culture bind inspection générale des finances indi bind cour des comptes leen ma seen représentant ñu teg contre commission de contrôle permanente bi ndax commission bi su existé wul man mënuma génne dërëm bi mu waxee loolu Mbagnick Ndiaye mi ne woon à l'époque ministre de la culture yónnee euh, yónnee yónnee Njawar Njawar Mbub Njawar Mbub ñëw nekk ci commission bi ah léegi ci diggante bi euh, ministre boobu dem na ñu dàq ñu fekk Bouna Manel léegi léegi maa ngi wax ak benn artiste bu nekk Suède Euh, Yéli Fall exactement muy ñaawlu lool ñu fekk Bouna Manel bi nga xam ne dañ ko jëloon ci appel à ñoom ñu dindi ko Ngoné Ndour dindi ko ak ay nitam. léegi est-ce que SODAV am na benn. léegi ñu nommé beneen directeur gérant mooy kan mooy Ali Bathily Ali Bathily mooy kan. Ali Bathily documentariste documentariste la archiviste la maanaam liggéeyam du gérer sax ñu jël ko nommé ko ba pare def ko intérimaire intérimaire intérimaire mooy. dañ la fi teg ndëgëniku mhm. ñu dem ba assemblée générale bi Abdou Latif doon validé boobu lañ ko soog a nommé mais ensuite texte yi sax morale éthique nanguwul ah lu day ni un directeur gérant de la SODAV ñu koy copté ñu koy nommé un directeur gérant da ngay def appel ak candidature parce que tey Sénégal dafay dafay dox si si ci si loi euh, euh, kii l'organisation mondiale di commerce. Mhm. parce que appel à candidature soo ko déggee. mooy société boo xam ne yàgg yàgg ay mbooloo ko bokk mais su tey bu doon société sa société la bopp la bu la neexee nga nommé benn directeur gérant léegi loolu rek déjà manquement la ensuite milliards yi dugg ñuy collecté ci hôtel yi restaurant yi ci turu artiste Sénégal yi ci turu sculpteurs yi ci turu dessinateurs yi ci turu bindkat yi mais loolu ñun lan ban firnde la ñu am ne xaalis boobu fu ñu koy def ñu bi ñu kaasee ñu dem def benn rapport bu deux mille dix neuf def ko ci seen site. ñu ne deux mille dix collecté nañu huit cent millions et quelque maanaam euh, kii euh, un milliard euh, huit cent kii un milliard deux cent la ñu collecté en deux mille dix neuf nee nañu un milliard deux cent yi de ñoom huit cent mille def nañ ko ñoom seen for seen fonds de fonctionnement ñoom Sodav ñoom Ngoné Ndour ñoom Ali Bathily ak ñi fay nekk ñu ne ñoom def nañ ko frais de fonctionnement chargé ñu ne la trois cent mille yi séddale nañ ko artistes sénégal yi mais. trois cent millions yi. trois cent millions léegi loolu détournement la. loolu abus de confiance le détournement la benn deuxièmement euh, bi ñu defee loolu euh, trois cent millions nañu wax kan kan lañ ko jox suñ ko waxee 300 millions yooyu waaw yi des buñ ko waxee Prince Art ak Youssou Ndour du ci génn léegi nag ma laaj artiste Sénégal yi ñoom lan la ñuy def dañuy toog di xoole mais euh, ñun dañuy toog ñun en tant que organisation <coughs> mais légalement constitué xaaral ma wax la ji li en tant qu'organisation légalement constituée qui existe depuis 2000 l'OMART l'observatoire de la musique et des arts Sénégal nga xam ne tey mémorial de Gorée bii ñuy waaj a tabax yi fan ñun ñoo ko xeex ba Ablaye Wade bàyyi ko fi site bi ñun statut de l'artiste ñoo ko xeex ñoo xeex yeneen avancée démocratique yi fi am tey monument de la renaissance place du souvenir infrastructure culturelle moderne yi ngi gis Sénégal yëpp omarate ko xeex ba tey yàlla def Sénégal doté d'infrastructure moderne de dernière génération Macky Sall am volonté politique loo contre njombar nanguwul ne mun na daw am déet mu am volonté politique mu jël subvention un milliard quatre cent def ko ci SODAV nee nañu woo un milliard quatre cent yi fayee nañ ko bor waaye léegi ñoom kan lañu ñu yàpp ma ne dëkk bi dëkk bi dëkk bi santul xolal dëkk bi dëkku sénégalais yi la citoyen sénégalais la mais mais artistes yi am nañ kuréel bu tudd euh, sayu ñoom Pape Cheikh ñooñu si lañ bokk mais mais Idrissa Diop moo ko dirigé et puis may profité di ko remercier di ko féliciter xam nga lu tax Idrissa Diop mu nuróowul ak artistes yi nga xam ne tàppet la ñu ragal lañu toog fee naan su ma waxee lii dama ne fii ku dul yàlla neen nga fii doo jël alalu artistes yi di ko dundee di def di euh, di di di di di def di wane ay image yoo xam ne véhicule woo ko doxaloo ko daa nga waxante dëgg mais est-ce que yu jàpp nga ne li président wax ne nañu audité SODAV hmm. président dafa jàpp ne euh, luubal dafa am wala li ngeen wax mais président dafa xam ne ne le constat est général ñun OMART bu ñu waxee déjà c'est crédible ensuite ay Idrissa Diop nga xam ne tey bi mu musique yu Idrissa Diop yooyu tey bu ñu demee bay kaas ak ñeneen ak ñeneen te am na artistes yoo xam ne yu mag fii du ma wax seen tur ñoo xam ne ñoom seen bopp ñu ngi jooy loolu artistes yu jigéen ak yu góor tey koo ci tàlloon micro dina la wax ne sodaa fayu ko waa léegi xaalis boobu milliards yooyu di dugg fan la dugg. est-ce que am na explication kana fayul artistes yu mag yooyu ngay wax. mais ah, mais non man j'ai les preuves d'ailleurs je suis maa ngi bind benn livre boo war a génn yii fan. d'accord bu tudd boo xam ne du yow laay jox exclusivité livre la euh, sur cette gestion euh, de la SODAV yoo xam ne preuve yi dama koy génne parce que man euh, bu ñu ma porté plainte police xam nga nit ñàkk xam-xam weesuwul mhm. ñu woola ci débat d'idées xam nga yow boo yoree télé yore rajo yore groupe ñu woola ci débat d'idées nga woo nit ñi ñu ñi toog waxtaan parce que lii débat la sur débat d'idées débat sur la mais lan nga wax ba mu góonee porte plainte wala Sodav moo la porte plainte mais dama ne ko mauvaise gestion bi am Sodav su Ndour moo ko pare parrainé lu tax ma ne moo ko pare parrainé mooy ñun BSDA bi mu fi nekkee jaabisi bi nekk fi Youssou Ndour bi mu faloo ministre la culture. Mhm. li mu njëkk a def benn décret le soumettre Macky Sall. Mhm. mooy dindi jaabisi bi. Mhm. mais bi mu dindee jaabisi bi teg ci Mounirou si loolu du parrainage dama ne lan mooy parrainage parrainage weesul nga dindi fa directeur bi def fa sa nit. d'accord léegi bi ñu la dégloo. biñ ma dégloo ñu bàyyi ma dem parce que xam nañu ay bolle puy del affaire bolle lii du lii taxul ngay jàpp nit. naan diffamation te man balaa moo ne ñoom ñu yóbbu ko tribunal. parce que ñoom déjà porté nga nit plainte rek ñu déglu ko police nga dem sa yoon doo ko yóbbu tribunal mais man dama leen yóbbu fi nga xam ne fa mooy véritable débat foo leen yóbbu mooy l'OFNAC xam nga OFNAC hmm. li président Macky Sall di wax c'est pour cette génération hmm. xam nga tey nul n'est au-dessus de la hmm. tey mauvaise gestion am na man OFNAC bi mu leen bindee dama leen sax yónnee preuve ba pare ne leen preuve yi boo leen xoolee si non kii of nag dégluwuñ déglooguñ la. non man déglooguñ ma mais moom déglu nañ ko moom moom dinañ ko déglu dinañ dem foofu fuyate parce que ñoom nee nañu jot nañu lettre bi te dinañ yónni seen service compétent ñu def seen liggéey. of nag danañ leen déglu bokkut ak tamit président Macky Sall mi santaan nañu déglu. Sodaar muy ñaari déglu. te ñaari déglu yëpp xam nga lu muy firnde. Mhm. mooy ñoom lajj nañu ba pare si euh, ci ci ci ci ci li ñuy dox maanaam ci luubal la gën a jege que lu leer ndax président de la république bu yeewoo rek ne day envoyé pour ñu auditer la mais kon xamal ne yow liggéeyoo ba pare commission de contrôle permanente boobu jiili mhm. mais gis nga tey commission boobu ñoom dërëm li juróomi ñeenti at yi ñu liggéey yëpp milliards yi ñu jël yëpp séddale ko ay nit ñi ak bilan yi ñu joxe yëpp bilan yooyu yëpp amul c'est pas légal moo tax ma dem ma saisir institution r yi nga xam ne yëpp dañuy yëngu ci euh, droit d'auteur ci àdduna bi lëkkaloog SODAV parce que ñooñu suñu xamoon SODAV noonu lay doxee kon ñoom du ñu jël seen xaalis sax di ko yónnee fii SODAV tey am na artistes yoo xam ne SACEM moo yónnee xaalisam fii SODAV SODAV fay leen. d'accord mais tey euh, yan artistes yoo xam ne yu nit ñi xam lañ yoo xamante ni tey ñoom bokk nañ si ñi nga xam ne ñoo ngi ñaxtu euh, di ñaawlu euh, SODAV ni ñu ko yore. yan artistes yu ma ba à part euh, Idrissa Diop. non non am na ñoo xam ne <coughs> dañu am lu ñuy wax. ay Pape Cheikh aussi. waaw Pape Cheikh xam na ñoo xam ne dañu am droit de réserve xam nga lu tax parce que tey jii ay artistes yoo xam ne dimension internationale lañu. ñoom bu ñu gisee dara metti leen dafa mel ne tey nag man ni ma saisiré nag ñun OMART noonu la ñuy saisiré bu ñu saisiré dañuy saisiré wax ñu lii de metti nañu. bu ñu waxee lii metti nañu ñun suñu mission. comme les droits de l'homme ni ñu melee ci ci ci ci ci ci di défendre les les les victimes de de de droits de l'homme mhm. euh, ñun mmh. aussi ñun noonu la ñuy intervenir mais pour te dire bokk président de la république xam nga lu tax mu jóg mhm. parce que xam ne ne Sénégal ba mu daj artistes yëpp kenn gisul seen bopp gisuñu xaalis biy dugg SODAV donc. mais mais SODAV euh, du du du caage ne euh, kuréel la boo xamante ni pour pour art du artistes yi way kese. non du ñuy way euh, euh, bindkat yaa ngi ci. Mhm. borom ñi defar tableau yaa ngi ci. ñuy léeboon ci leer ñu ngi ci. Mhm. bon mais SODAV c' est pas affaire boo xam ne sax affaire u affaire benn nit la. du mhm. affaire benn famille mais est tey yow kuréel bi nga yor nii. comme ku mel ni kuréel mel ni Omart. ak kuréel bi nga xamante ni tey say wi est ce que kuréel yooyu SODAV mos nañ leen a woo. ci waxtaan wala yow Omart ndax Sodaaf bi ko ngoonee Ndour nekkee présidente conseil d'administration bi mas na ñëw benn yoon Omart pour mu ñëw fekkee ay réunion gis nga dinaa la wax leen te tey dama ko wax sa antenne bi man Ngone nduur woo naa ko ne ko euh, ni ngay doxalee du noonu te su ma sañoon ñu toog ñu waxtaan parce que bugguma euh, lu jib ci biti mais nañ toog waxtaan ma wax la lu muy nu liggéey bi di doxee bi ma ñëwee toog waxtaan ak moom ma ne ko. Euh, gis nga évaluation bi président wax. Mhm. billaahi wallaahi taalaay loolu laa ko wax dama ne ko woo war organisation professionnelle yi nekk secteur bi ñu def journée deux jours trois jours évaluer doxalinu SODAV ak xaaj bu fi dugg ak ñi ñu jox ak ñoom mais mais dafa ne moom waaw rek mais ba tey kenn déggu ko bañ naa ba ne ko créel kuréel goo xam ne sax organisation yooyu maanaam ñuy nekk kuréel de consultation c'est-à-dire que dañuy ñëw di contribuer doxalinu SODAV mais dafa bañ xam nga lu tax lu waral loolu yëpp. parce que tey conseil d'administration boobu sax moom Ngor Ndour mu yore am na ñoo xam ne war ñu si bokk parce que ñooñu si comité de pilotage bi la ñu bokkoon benn am na ñoo xam ne ci conseil d'administration kii da ngay gis kii démissionné na wala kii dee na moom mu dem jël nitam dugal ko ci. mais yow euh, lan moo tax bindu leen euh, inspection générale d'État wala ay cour des comptes pour ñu ñëw euh, visite ay cour des pour ñu ñëw auditeur. non xam nga am na institution bu boo xam ne moo valable mooy nag OFNAC. Mhm. nag mooy mooy daj dëpp bi te man j'ai confiance à l'OFNAC man xam naa OFNAC. of nag day yàgg rek gis nga téeméeri at sax bu ko defoon Macky Sall sax bu demoon ba jóge fi mais plainte bii day demeurer. Mhm. day demeurer. c'est pas affaire boo xam ne ne dañ koy dugal nii tey gars yi ne suba fàtte nañ ko benn deuxièmement euh, audit bi mu président Macky Sall wax ala kulli ali nday am alaa kulli ali nday am parce que xam tax muy am parce que président de la République xam ne ne fu mu dugal milliard am un milliard quatre cent am dina xam foofu lu luñ ci def euh, d' accord euh, Abdoulaye Mamadou Guissé euh, yow yaa jiite kuréel gi di OMART mu yëngatu ci lu jëm ci wàllum wàllum culture fan yi ñu gis ne dem ak dikk am na sa diggante ak SODAV mais yow tey lan ngay reproché wala su dee am na ministre yi nga xamante ni tey bi président Macky Sall ñëweeg léegi ñoom lañ fi tabb ñu nekk ministre de la culture mais ministre yooyu d' abord defuñu seen liggéey defuñu seen liggéey nañu waxante dëgg xam nga tey le président de la république problème benn problème la am Macky Sall mooy am na volonté pour def ci culture parce que xam nga lu tax parce que dafa nekkoon premier ministre ci Ablaye Wade tey projet culturel yi ngay gis yëpp ay monument de la renaissance place du souvenir statue de l'artiste ba SODAV bi moom mu ngi woon premier ministre mu ngi woon ci gouvernement bi il est il était au cœur de de de ces grands projets du chef de l'État ay les sept merveilles mais président xam nga luy erreur mooy dafa jël ministère de la culture fi mu njëkkee lajjee côté boobu mooy jëm jox ko Youssou Ndour Youssou Ndour mënul sax gérer Prince Art Youssou Ndour mënul gérer Prince Art pour gérer lu day ne so euh, ministère de la culture encore moins SODAV parce que déjà koo xam ne man kese ngay wax koo xam ne yow xoolal ne euh, homme de culture nga war a nekk da nga war a jawe tëddee njaxanaay mhm. yow business nga jiital mais kooku soo ko dénkee ministère de la culture conflit d'intérêt am na. benn waaw mais mais xaar ma wax la Youssou Ndour jóge fii mu teg fi Abdoul Abdoul Mbaye Abdoul kii Aziz mbay kooku ñëw nekk presque fan club bu Youssou parce que moo nekkoon président fan club bu Youssou Ndour euh, fële Afrique du Sud. ay jamono waaw. kooku nekk gi kooku bi mu ñëwee toog moom Aziz ni ak ñeneen yaataa yumbe ndaataa talax ministre foofu ñun ñuy xeex parce que ñun on dit xam nga ñoom man lan laay wax. man dama ne c'est man c'est la c'est le combat qui m'a fait vivre man Ablaye Mamadou Guissé man xeex mooy tax may dund may nooy su ma xeexatul kon xamal ne man dee naa <laughs> te damay xeex ba bës may dee. d'accord mais Guissé Mbagnick Ndiaye ñëw Mbagnick aussi liggéey na liggéeyul parce que waxul cell la def seetaan mais ministère yooyu yëpp mais amul benn ministre bu ci mën a jóg bii passé Ablaye Diop. Ablaye Diop ñëw na. Euh, début bi dugal nañ ko si lépp parce que moom ci boppam moo njëkk wax scandale bi am SODAV. bu leen fàtte loolu Ablaye Diop mu dem di visiter SODAV ñëw ne leen un milliard quatre cent yi ngeen collecté fu ma leen ko dugal ñu ne dañoo jël huit cent millions yi def ko sur si ñun suñu bopp fonctionnement charge jël trois cent millions lan mooy charge SODAV charge ah, loolu de ñëpp di laajte loolu laaj nga yow de laal nga góom bi parce que ñun looloo ñu metti sa SODAV ban charge la am. ak fonctionnement bi SODAV ñi fa nekk motuñu trente personnes bureau yi état ko moom Sénégal ko moom immeuble bi ñu nekk état ko moom nee nañu gée dañu dem loué beneen immeuble xaw ma appartement nee nañu ñun dañ leen di sosal ne appart am immeuble la waaye appartement la ñu loué lu ñuy doy appartement te artistes yi lekkuñu naanuñu lan lañ koy doyee te ma wax la leen gis nga juróomi milliards yooyu dugg Sodaar mais man maanaa wax artistes sénégalais yi mënoon nañu am weer bu nekk trois cent mille uh-huh. te xaalis boobu du jeex defuñu ko tey jii am na jeunes yu jël gaal yi di dem ñi si bëri ay si milieu culture lañ nekk ay manager d' artiste lañu ñii ay ay bokk nañ si staff ñii ay webmaster ñi nekk dans le secteur de la culture tey ñoo ñëpp dañuy jël gaal lan la dañu dem ba découragé mais tey am ñoom Sodav am nañ ci responsabilité ci loolu parce que am na noo xam ne bu ñu ko doxee woon la culture va vivre de son les acteurs vont vivre de leur art. d'accord alors tel n'est pas le cas. waaw mais euh, gisee tey euh, sànq da nga wax ne donc le président de la république. Uh-huh. Macky dafa war a def tout ba commission de contrôle permanente boobu ñu installé ko au plus vite mu def liggéeyam. et coupable les coupables ñu traduire leen en justice. d' moom a Mamadou gisee euh, sànq yaa ngi wax ne dafa am artistes yoo xamante ni euh, dañoo ragal du ñu wax ci kaw ndax yenn artistes yi da jàpp ne dañoo ragal ne bu ñu songee euh, ngoone nduur wala songu Sodaaf te Ngone nduur nekk rakku Youssou Ndour te rakku Youssou Youssou Ndour yor ab groupe de presse bu mag artistes yi soxla ku leen teg ci tele soxla ku leen teg ci rajo loolu mooy tax est ce que jàpp ne loolu moo tax ñoom ñu noppi. non man bon loolu. loolu loolu bon am na benn côté boo xam ne na ñoo xam ne peut-être ay complexe lañu mais man gis naa ne léegi tey Wally Seck bi muy siiw jaarul TFM jaarul RFM jaarul fenn xam nga Wally Seck bi muy siiw réseaux sociaux yi ñoo tax mu siiw parce que monde bi moo global actuellement jii li man tey bu ma bëggee wax damay ñëw réew réew mi FM ah, yéen a ngi site internet Sénégal yëpp xam ma yéen a tax ñëpp xam ma est-ce que jaar naa foofu jaaruma man dañ may invité sax ma bañ man ñoom dañ may invité ma bañ xam nga lu tax parce que groupe de presse dafa war a indépendant mais groupe de presse boo xam ne yow sa patron nga fi nekkal suñ ne Thione Seck def na ni nga def ko à la buñ ne euh, Wally Seck def na ni nga def ko à la te yow sa patron njombe la dëkk te mosoo ci génn dara non dañu waxante dëgg gis nga senegal gii Sénégal Sénégal dëkk la ñun ñun kenn mënuñu gis nga ma xool man man euh, man je me sens fier d'être xam nga lu tax parce que dama ne man ragaluma ku ma jeebaane ragaluma ku ma yaataa yumbe ragaluma dara xam nga lu ma lu ma ragal man xëy bés gis injustice croiser les bañ ko xeex te lii je te dis au prix de ma vie su mu si waree teg sama bakkan Ngoni nduur Ali Bathily ñii yore CEDAV ŋànk ko ak une seule ay poignée de personnes une minorité mais loolu day day day day dañ sénégalais vivre les les acteurs dundu seen dund am ci millions yi dugg seen oto yi di dawal di dundal seen njaboot. bañu dëpp cin donc man loolu mooy sama combat su mu si waree jox sama bakkan jiili. Mhm. barke Seydina Mouhamed dinaa ko ci def. parce que lu dul yàlla. neen la zéro d' accord jërëjëf euh, Abdoulaye Mamadou euh, Guissé euh, mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi samedi bu jot 15h jàpp 16h moom la ñu invité tey ndax dafay ji yor ñaari casquette comme li ko waxee sànq dafa jiite OMART ba pare nekk jiite benn parti politique bu tudd MCCS deuxième parti bi 15 h jot na. dañuy fulaak fayda dañu fas yéene ñëw ci wàllum politique mais bala ñu ñëw ci politique bi benn question boo xam ne pour nga tontu ci une minute rek hmm. mooy Léopold Sédar Léopold Sédar dafa moom dafa doon wax ne am réew euh, ngir mu développer euh, ba war nañoo mën a sukkandiku sax ci li nga xamante ni maanaam moom mooy euh, moom mooy culture ti ci Sénégal dama gis ne ministère la boo xamante ni fulaak fayda bi nga xamante ni moom la ko suñu président yi di jox sax hmm. soo dee xool dafay dafay des est-ce que loolu Léopold Sédar Senghor doon wax yow bokk nga si ñuy gis loolu mais effectivement man même boo xoolee parti politique bi ma créé c' est que ñu bëri dañ comprendre mais c' est un parti d' obédience culturelle moo tudd mouvement culturel pour le salut du Sénégal man jii li lépp lu may def si culture la parce que xam nga lu tax parce que dama xam ne culture mooy jëmale réew kanam euh, tey mënoo développer sa réew te développer si culture mais li war li pour développer réew ci culture nag ci langue nationale ngay démarrer ñun moo tax ñun ñun ñun suñu parti jiital loolu langue nationale yi mhm. tey ji internet site internet bi google google war war na am ci langue nationale yëpp tey war nañu mun a nekk am ay des ingénieurs yoo xam ne des agriculteurs yoo xam ne mm-hmm. ci seen langue nationale la ñuy maîtriser semence bi mbay mi ci la ay docteurs yoo xam ne garab yi dañ koy composé ci langue nationale yi loolu buñ ko defee di def ay recherche sur les langues Sénégal day développé tey gisoo dëkk bu développé en dehors de sa langue nationale amul mm-hmm. tey boo demee Chine Japon Arabie Saoudite Angleterre États-Unis seen langue nationale la ñu développé donc loolu moo waral euh, euh, euh, Senghor bu ne culture mooy développé réew c' est vrai mais c' bien vrai que nag Senghor sax dafa théoriser culture mais pratique exactement ñu pratiquer culture bi mooy ñu débarrassé wu tey ci français yi débarrassé wu ci yeneen xeet yi jël suñu xeet di fajoo suñu li nga xam ne suñu ñun ci la ñu xam pour fajoo local bi rek ak di lekk si suñu dugub ji li ñu bay ak yooyu loolu mooy tax ñu ne culture mais culture du fecc ak xanaa xamoo tey man su ma gisee ay culture fecc ñu defee ne fecckat yi wala ñuy musique kese ñooy culture. Mhm. mais man sama xel damay ree sama day tee parce que dama ne Sénégal xamuñu luy culture xamuñu ko. la preuve da ngay gis sax même média yi euh, euh, bu ñu defee seen journal page culture ay cinq minutes la. Mhm. c'est parce que xamuñu ko tey États-Unis industrie culturelle moo am bañ nañ ko ba amuñu sax ministère de la culture ñoom état bi ci boppam mooy ministère de la culture. artistes yi ay milliards la ñuy fayeeku. Mhm. ku laal droit artiste bu gën a ndaw ñu tëj la kaso waxuma la nag nga yore société bu mel ni Soda foofu euh, te tëdd si juróom ñeenti at jël ay lu mat juróomi milliards kenn xamul fu mu dugg anaan ay fay naa fees man un milliard mais pour lan. d'accord nu mu euh, tëddati sax ndax <laughs> bëgguma tooñ ko jërëjëf parce que xam nga euh, sama xol day day day métti. jërëjëf euh, Abdoulaye Mamadou Guissé léegi ñu wax ci lu soxal wàllum politique yow yaa jiite parti bii di MCCS. Mm-hmm. li nga xamante ni mooy actualité bi nga xamante ni mooy am na. Mm-hmm. moom mooy li nga xamante ni tey moom mooy. Euh, ànd Idrissa Seck euh, ak ki nga xamante ni tey moom mooy euh, président Macky Sall yéen waa parti MCCS. Fulaak Fayda mm-hmm. retrouvaille boobu noonu. Mm-hmm. lan moo ci seen xalaat. bon d' abord man Djily dem naa benn émission ak mu du awe Ndiaye. 7TV. Mm-hmm. ma mu interroger ma ma ne ko. Idrissa Seck opposé wul. mu ne ma sii mu ngi opposé ma ne ko opposé wul. boobu defaguñ gouvernement bi. boobu defaguñu gouvernement ma wax aussi ci émission bi. que Macky Sall dafa war a changer gouvernement bon parce que mat ba lañ dem ba machine bi dafa huilé huilé tul dafa max gars yi course la gis nga état course la fond la mais du course la vitesse donc def na fa ñoo xam ne attanuñu rythme pour yore état léegi def na remaniement dugal na ay ministre mais aussi dugal na idi mais fa dafa am lu ndaw rek lu ma ci ciy appesantir xam nga Ablaye Wade bi ñu ko gañee en 2012 Macky Sall la ko gagné. Euh, bi mu ko gañee Ablaye Wade dafa dellu Versailles bind en 2013 mu bind benn livre ah la retrouvaille de la ah. grande famille libérale. Mm-hmm. mas nga ma ko envoyé. mu jox mu jël livre bi jox ma ko. Mm-hmm. livre bi Ablaye Wade wax moom fi muy taxaw fu Macky Sall di taxaw fu Idrissa Seck di taxaw ba ci ñun ni génération bi ñëw fu ñuy taxaw kon nga xam ne Wade moom. Euh, moom moom maanaam. mooy politique moom moom mooy mooy dawal. mooy dawal léegi Idrissa sec il était question de en surenchère. xam nga lu tubaab mais boobu famille famille retrouvailles famille libérale euh, Ablaye Wade euh, waxoon ci livre boobu. waaw moom la ci wax nee ne moom Ablaye Wade day woote c'est un appel pour euh, la retrouvaille de la grande famille libérale bi mu ko waxee ñëpp dafa ne Wade day théoriser. ma ne leen xamuleen leen waa de théoriser wul de parce que moment boobu euh, Macky Sall mu ngi jubal pour jàpp Karim pour def nii yóbbu dowa def nii yooyu yëpp mais Ablaye Wade moom xam na li xew xam na àdduna bi lu muy doxee gis nga jili àdduna bi monde bi ñu nekk nii Macky Sall ci boppam xam nga tey Karim du candidat en deux mille dix neuf bi nekkul candidat te dama taw tele rajo ma ne Karim ne sera pas candidat le populaire def ko à la une ma yeewu suba teel Euh, front patriotique bi nga xam ne man maa nekkoon président à l'organisation ñoom Omar Sarr ak gars yi nekk de Croix dañ ma dàq dañ ma génne foofu ñu ne lu tax ngay wax loolu man leen parce que xam naa 2019 du nekk candidat parce que Macky du ko du ko nangu mu nekk candidat yàlla duñ jox ba 2019 nekkul candidat Ablaye Wade ñëw def euh, euh, chaise vide boo xam ne moom moo ñu ko tere moom Wade politique de chaise vide mais man ma ne ko nag man du ma accepter politique de chaise de chaise vide présenté wu présenté wu naa ci parrainage bi ñu ñu empêché yu bëri par la suite ma rejoindre président Macky Sall xam nga lu tax ma rejoindre mm-hmm. ndax appel président Wade bi retrouvailles de la grande famille libérale après nga bàyyi Macky Sall waaw d'accord léegi ñu ñëw léegi euh, waaw léegi euh, président Wade euh, dafa woote appel boobu mais appel boobu pour mu am Ablaye Wade Macky Sall tey bu ñu bu yeewoon suba teel jubóog Ablaye wàdd def gouvernement def ci Karim Wade mais Idrissa Seck du mës a dugg moo tax ma ne la euh, euh, Macky euh, Idrissa sec bii mu jël dugal ko ci gouvernement bi sur enchère la pour que maintenant nag Ablaye Wade war a mun a nangu négocier ak moom war a mun a nangu Karim bu dugg ci gouvernement bi te foofu lañ jëm maa la wax fii nga may gi ñu ngi woote benn loi à l'Assemblée pour pour amnistier ñëpp ñu def crime économique man sax man je doute parce que man man am moment yaakaaroon naa ne li ñuy reproché Karim yëpp am na mais man man gëmatuma ko parce que xamul tax gëmatuma ko parce que man dama gis ne Macky Sall nu mu bëggee jubóog Ablaye Wade Sénégalais yi dañu foog mais dañu xamul ne ab Macky moo bëgg jubóog Ablaye Wade mais Ablaye Wade bëggul jubóog Macky. léegi lan moo tax nga ne Karim da dugg ci gouvernement bi. mais parce que Macky loolu lay dox moo tax mu indi idi dugal ko loolu sur enchère xaw ma ndax noo nu ñu koy waxee ci wolof maanaam yëkkati prix njëg bi. njëg mi njëg njëg bi la la Macky di yónnee xam nga Macky mooy président loolu rek déjà njëg la prix la mais su ma indee idée dugal ko sama gouvernement léegi ak ay mini ay ma jox ko poste bi jox ko CSE mais ëllëg su ma ne Ablaye Wade léegi nañu juboo waaye nag na Karim ñëw bokk ci gouvernement jàppale ma ñu liggéey Sénégal Ablaye Wade ne ah war naa mën a nekk li nga wax ni analyse la ah, wala. non fa la ñu jëm. du analyse fa la ñu jëm man man du ma analyser man su ma lay analyse dama naan la lii analyse dama ne la fa la ñu jëm te enregistré ko nga teg ko. nga denc ko pour ëllëg mais mais nañu nañu am nag ngor boo xam ne ëllëg bu bu amee nañ ko teg ne moom Mamadou Guissé waxoon na ko fi parce que bi mu nekk Karim du candidat ñu bëri gëmuñu ma mais nekkul candidat euh, sur enchère la la Macky di def parce que il a pouvoir mais loolu ça ne suffit pas mais léegi dugal na Idi léegi nag léegi war naa mun a wax ak euh, Ablaye Wade ak PDS mais nag dinaa la wax leen euh, ci waxtaan boobu Ablaye Wade ci boppam. man du ma ko reproché lenn xam nga lu tax parce que Ablaye Wade bi mu gën a metti démocratie sénégalaise nga xam ne démocratie amul Ablaye Wade ànd naag euh, Abdou Diouf bokk na ci gouvernement Abdou Diouf ñaata yoon. mais boobaak léegi bokkul ñun ñun déglu ma wax la man boobu maa ngi maa ngi maa ngi lycée Blaise Diagne. mais boobaak léegi bokkul nag. non bokkul dam dama lay expliquer. Wade moo ëpp Karim Karim moo ëpp Karim waa PDS comme ku fa nekk ku dab Wade amul. Ah. mais Ablaye Wade dimension panafricaniste. ak bëgg réewam ak nekk démocrate moom accepté na dugg ci gouvernement mm, euh, euh, Abdou Diouf c'était pour que. waaw mais booba gis nag ay mag kese ñoo doon euh, ay mag kese ñoo doon fal président bokkut ak léegi nga xamante ni jeunes jeunes yi. parce que ñooy fal. non non non même ba léegi sax élection Sénégal des na ji lii. waaw des na mais man man transparence bi ñuy woote si élection man. waaw man waxuma waxuma transparence parce que déjà. waxuma transparence élection bi bi rek da lay ne. Euh, euh, doxalin bi jaarul yoon. waaw d'accord mais bu njëkk élection ni ñu ko organiser. dara baaxu ci non li may waxee mooy bu njëkk. ni hmm. mag ñi doon voté ak ndaw ñi léegi ni ñu sooboo ci wàllu politique mais dama ne comme yow. par exemple non monde bi sax changé na. d'accord mais dama euh, léegi gaa ngi tëdd si ay résultats. waaw ndax gis nañ ko fi Guinée. gis nañ ko fi Côte d'Ivoire. d'accord mais Idi nan la mën a d'accord ak président Macky Sall ak li fi Idriss Seck wax mais Idi du moom mooy nangu xam nga Idi Idi fu mu nekk dafa am situation bu mu jógee. jii li Idi fu mu nekk nii Euh, su ne su yàggoon tuuti ci biti boo ko rombee sarax ko nañu waxante dëgg looloo waral mu dugg. dafa amoon jafe-jafe mais dafa am jafe-jafe. mais politique moyen la. moom moo soxla Macky wala Macky soxla. non moom moo soxla Macky Macky soxlawul Idi nee naa la Macky is en chair la Idi en chair la ci moom indi Idi pour que mun a ne gën a valider négociation moo moo war. kon da nga jàpp ne euh, Macky soxlawul Idi. mais mais dama la soxla. PDS la soxla. d' accord léegi euh, Idi xanaa kon amatul ambition. ah mais Idi même bu amee ambition ambition dee na man kay maa la wax lii Idi. idi maa la idi ambition dee na parce que déjà ni ñu ko ni ko dugalee sax dañ ko rey. jàppoo ne ëllëg mën naa ñëw président Macky Sall jiital ko deux mille vingt quatre non mais Macky Sall euh, wax na ko journal tey nee na moom bu tasee moom bu yàqee APR boppam la yàqal Macky Sall au plus grand jamais du jiital idi loolu man maa la ko wax fii. mais tey euh, bu ñëwoon bokk ci gouvernement bi ak PDS. jàpp nga ne yi Karim la gën a wóolu ko Idi no bu ñu demee vers la une reconfiguration parce que c'est possible mun nañ dem vers un grand parti euh, de la grande famille libérale mun nañ fa dem bu ñu demee vers un parti nga xam ne du nekk PDS du nekk APR du nekk beneen parti mu nekk la grande famille libérale Ablaye Wade nekk président d'honneur bi mais ñu ñu ñu dem congrès ku ñu wax ne kii mooy candidat mooy candidat. est-ce que démocratie Sénégal foofu. non mais ñoom mun nañ ko parce que Wade nekk na ci pouvoir Macky nekk na ci pouvoir. te ñoom ñëpp ay famille libérale la papa la moo wàcc jox doom doom jooju war na mun a xam ëllëg lan mooy sauver la famille. mais ñi jàpp ne Macky euh, deux mille vingt quatre pour mu bàyyi réew mi hmm. il faut que mu xool ginnaawam. ba hmm. ñi nga xamante ni tey ay ñoñam kenn du leen topp. Hmm. ñenn ñi sax wax nañ ne loi bi nga xam ne moom lañ bëgg a voté assemblée nationale mu jëm ci amnistie euh, crime économique ak financier yi. bokk na ci euh, setal euh, ñi nga xamante ni ñooy ay nitam euh, ñenn ñi dal dañu jàpp ne Macky dafay préparer ëllëgam tey su doon dem Macky su doon dem tey bay bàyyi Sénégal bàyyi réew mi ndax kan nga jàpp ne ndax président liñ ciy jot a xam nii rawatina fi àdduna toll nii kenn du jekk-jekk sànni am réew noonu il faut que nga wut koo xamante ni tey dina la jox ay garantie kan nga jàpp ne Macky war na ko mën a ngemb non man pour man man je pense que Macky war na dépasser ngemb nit xam nga lu tax parce que euh, tollatuñu foofu en démocratie Macky mën na am candidat comme tey bu ñu ne reconfiguration am ñu dem vers un grand parti libéral boo parti boo xam ne libéraux yi ñoo ci retrouver wu mais mun nañ def congrès boobaa ñu am candidat boobaa candidat boobu boo amee Macky Sall day supporter candidat boobu rek mais je te dis Macky euh, garanti yooyu mu bëgg dina ko am ndax euh, Sénégal toll na foo xam ne aussi du président man de gisuguma Sénégal président dem ki toog tëj keneen ki amugu fi donc du si Macky lañ koy defee man je suis benn deuxièmement mooy kan nga yaakaar bu bu Macky demee moo fi toog mais loolu Sénégal ji li bu leen ko dugal ci bopp sénégalais yi xam nga lu tax mu garaaw dafa mel ni mbir mbir mi royaume la mais mbir mi du royaume yi wax nga ko léegi nga ne àdduna changé na mais il faut mu am ku mu jàppale waaw mais ku mun mënta jàppale mais ku mu mënta jàppale aussi si ay ay ay charte la koy teg d'accord tey bu Karim Wade bëggee présenté wu Ablaye moom la gis bëgg a présenté ma ne ko man de boo ma ma faloo ma la du ma la poursuivre mais quand même dinañu auditer def lii def lii. mais quand même la dinaa la sa immunité mais ci loolu laa dinaa encadrer sa famille. Mhm. ba ko laal mais aussi ku fi lekk xaalis da nga jël mais du ma tëj sa la tëj mais parce que loolu ne serait-ce que exercer nga fonction ancien président de la république euh, ex euh, Ablaye Wade ko Abdou Diouf kenn tëju ko parce que tey jii bu doon tëj président am mais mag euh, Ablaye Abdou Diouf la ñu war a njëkk a tëj te Ablaye Wade defu ko. d'accord mais euh, Abdoulaye Mamadou Guissé euh, Sénégal fi mu toll nii euh, gouvernement bi ni muy doxee nii ak gouvernement bi ñu tas ndax am nga yaakaar ci Macky Sall mu soppi jafe-jafe yi nga xam ne moom la askan bi nekkee. noo man yaakaaruma ko nag sérieusement man danaa la wax leen. yaakaaroo lan yaakaaruma Macky. Macky c'est-à-dire que Macky dafa mel ni bu dee course la dafa mel ni moom cent mètres yi njëkk ci la def effort am ba cent mètres yi jeex. léegi yeneen cent yi des moom daanaka day dox rek ba yegg terminus <laughs> waaye. lu tax nga wax loolu. mais parce que Macky de 2012 ba 2019 Macky Sall ñëpp xam nañ ñu volonté pour liggéey gis nañ ko teg na grande réalisation teg na grand projet yu mag. mais Macky Sall 2019 ba tey ji may wax ak yow nii ba tey léegi ñu dugg ci 2021 mais Macky Sall euh, man projet yi mu teg yëpp dafa embourbe dafa këpp ci kawam parce que. Euh, mise en œuvre bi la am la la la la la xamul luñ koy defee parce que état. est-ce que na équipe bu baax si mais amu ko loolu laa lay wax man keroog sama émission loolu laa dama ne Macky amul équipe bu baax ensuite bu dee yow da nga jiite réew te yow yemale woo waa réew ma yemale woo ñëpp c'est-à-dire que tey man jiili su ma jiitee Sénégal man bu ma xool ndax jiite jiili ay na damay jël sa communication pale jox ko jiili parce que dama jiili aay na. mais du xool ndax jiili bokk na sama parti. dafa da nga par par day bu mag te loolu ma ko sonal ba pare dafa jiital famille ci gestion am Macky bokk na ci ay loo xam ne euh, yu ko freiné la ensuite euh, man li ma gis aussi mooy euh, nit nit da ngay am courage nga jouer nga organiser jeu yu leer Macky démocratie bu transparente nangu ko te loolu aussi dama ko ciy woo il faut mu nangu jeu jeu politique bu transparent. boole si gars yëpp. mais mais loolu la. tey Karim dafa war a ñëw présenté wu. lan tax Khalifa wu Khalifa présenté wu lan la. mbir mi làmb la. nit da ngay sa bopp man lu tax ma naw Ablaye Wade sama góor gi lu tax ma naw ko Ablaye Wade soo doon jël jaas yi di ko dagg gorge bi jeu démocratique moom ci yoon rek la koy teg day leer rek Abdou Diouf am na mérite parce que bi muy PS di sàcc élection des années ay 40 ans mu xam ne li historiquement baaxul ci PS mais moom dernier mandat bi dafa ne man damay organiser élection yu leer libre moo indi code code bu nga xam ne moo gën a transparent code boobu moo fal Ablaye Wade. mooy code fal Macky 92. 92 euh, moo fal Ablaye Wade fal Macky Macky changé code boobu donc c'est anormal. yow Macky da nga jàpp ne dafay luubal élection. non non Macky mais bien sûr Macky Macky Macky d'abord parrainage wi c'est c'est loo xam ne waru ko woon def euh, bokk na loo xam ne historiquement kenn mënul légitimiser deuxième manda am Macky deuxième mandat bi kenn mënu ko légitimiser. da ngay jàpp ne deuxième mandat bi ni mu ko falee baaxut. baaxul c'est pas légitime. d'accord naa moo deuxième mandat Macky bi ba tey jii ba suba nit ñi mën nañu ko attaquer. du question ne du question ne rek yow falu nga dem nga prêter serment. Cellou Dalein Diallo tey mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi attaqué euh, kii euh, kii tey Guillaume Soro mu ngi attaqué Ouattara mais lan la ban dëkk la ñun man su may wax dëkk bi suñu dëkk la c'est que dafa dama gëm ne man man on wala rek yow Macky ni mu yoree réew mi baax na wala ni mu. wala baaxul teg na ko ci tegu ko ci yoon baaxul tegul ko ci yoon Macky Sall. léegi ñoom ñi mu àndal dañuy saax saaxe alul réew wala saax mais dañ koy saax saaxe. d'accord léegi ñu ñëw ci euh, li nga xam ne mooy contrat bi président signé wala accord de pêche yi ak Union européenne gis nañ ne euh, pêcheurs yu Sénégal ñu baree baree bari démb sax doon nañu amal euh, ay manifestation ki ñaxtu dañ ko naqarlu ndax jàpp tey ba pare bëri na ay mool yoo xam ne ñoo ngi dem ci gaal geeg yooyu ndax ministère de l'intérieur mm-hmm. ministère de l'intérieur ñoom dañoo wax ne ñi ëpp ñuy dem ci gaal gi si ren jii ci ay ay mool lañ te mool yi ñoom nee nañ gisatuñu jën ci biir géej gi ndax bato étranger yi ñuy napp jën yépp mhm. ba pare d'accorduñ ci accord de pêche yi nga xamante ni état bu Sénégal signé na ko ak Union européenne mhm. lan moo ci sa xalaat mais sama c'est-à-dire que gis nga géej gi ak sunu culture mooy li nga xam ne ñun ñoo ko moom suñu ressource la tey jii euh, géej gi dañoo jaay géej gi dañoo jaay géej gi dafa mel ni xarulaadum gis nga xarulaadum dañ naan la yaay ji ëmb na nit ñëw jëndee ko sept cent mille. te génn te te juragul. waaw noonu lañ def géej gi. dañoo géej gi dañ ko jaay. jaay nañu géej gi bul ne accord accord xam nga loolu mooy lan accord mooy euh, jox euh, euh, dañuy wax da ngay def lii ma def lii mais accord amu fi exploitation moo am léegi nag xam nga conséquences mooy lan mooy mais ñoom ci géej gi lañ doon dundee bu ñu leen mayeetul autorisation ñu dem ba ci digg géej bi napp. Mm-hmm. ñu ne tubaab yi rek ñoo fay yegg. te bato tubaab yi ñoom lañ dañuy dépassé ba ñëw si seen côté. mais dañuy ñëw ba fii ji léegi fu jën bu fu xam nga ñun yàlla dafa def mbalit mi aussi jën yi fu mbalit mi nekk dañu te xam nga Sénégal dëkku mbalit la. même même nappkat yi ñoom dañuy wax ñu ne Mauritanie sax ni ñuy surveiller ñoom seen géej fekku ci Sénégal. waaw mais Sénégal loolu da koy xool sax si péage bi a à péage bi tubaab yee ko yore est-ce que ñun am nañ ci droit. léegi xale yiy dem ci gaal gi. mais man je dis la responsabilité de l'État wax naa ko man nee naa le président de la République Macky Sall bu bien vrai que dañu naan xale yii waruñu dem nañ leen sensibiliser certes parce que man li ma gëm mooy ki tax nga jël gaal courage fit bi nga am ba songu géej gi mais songal ki tax nga nga mënatoo toog sa kooku songal kooku. yow da nga jàpp ne coono bi nit ñi di am. pour di ko daj ci géej gi. dañ ko doon am mais mais nañ ko songu Macky Sall. wane seen na naqar. mais nañ ko fi sol jëli jëlee ko fi. barki Cheikh Saliou bu ñu ko songoon dugg pale jël ko génne ko. génne pale xanaa mais mais bien sûr man man man moo dama ne ni ni ñu amee courage. songu géej gi. mais loolu songu palais ko gën a yomb. maanaam su ma la déggee palais dara newu fa di. su la déggee gardien wax gar ay garde yoo xam ne sax xam naa ne. <laughs> ñoom seen bopp sax peuple bi la ñu la déggee mooy. Euh, euh, huit jours wala dix jours yi nga xam ne moom ngay def ci biir géej gi ak li la ci mën a fekk yëpp mooy askan bi am lu la naqari ñu taxaw bis ne tay jii ñun ñëpp ñu am lu naqari dañuy taxaw wane suñ bopp mais dañu mais jeunes yi tey bu ñuy demoon bu ñuy ànd courage boobu ñu am buñ ko amoon dem jubal biir palais. de la république waruñoo jubal palais waruñoo jubal palais dañoo war a toog place de l'obélisque wane seen. naqar mais pourquoi place de l'obélisque non waruñu dem. parce que palais palais moo gën a moins dangereux que géej gi. wala xam nga loolu ji li. waaw mais euh, mën nañoo taxaw. place de l'obélisque ndax géej gi boo fa duggee da ngay xaru la da ngay dee. Hmm. alors que palais bi genre garde yi fa nekk si boppam. mais il ne faut pas tirer sur les sénégalais. mais waruñu dem palais. waroo koo digal kenn dañoo war a wax ne dañoo war a toog place de l'obélisque wane seen naqar mais ñoom ñoo digal ñoom ñoo digal xale yi nañ dugg ci gaal gi ma digal xale yi nañ dem palais Ah. parce que foofu mu ëpp mooy coono. nan lañ digalee xale ñu dem si gaal gi. mais parce que ñoo leen jox bañ a jox xëy. Mhm. jël alalu réew mi di ko séddoo seen biir. jël terrain yi ma jàmbal jaañ wax na ko nee na alalu suufu Sénégal ni ñu ko seddoo sous le régime de Macky Sall te ma jàmbal Macky la àndal nee na musul am ci régime ni ñu saax saaxee suuf si gis nga li gémmin su waxul dëgg wax fenn man jiili du ma la bëgg du ma nopp sama jabar ba ne ko ah, yow yaay yaay àdduna bi loolu loola neex defal déedéet nit loo ko bëgg-bëgg wax ko dëgg Macky Sall dafa échoué le président Macky Sall il a échoué sa politique échoué na tey jii euh, li ñuy assisté xam nga mooy lan mooy de la politique politicienne man tey dama doon yaakaar moment bi Macky Sall di toog PSE bi ah bi mu waxoon lay mettre sur pied tey terre bi nga xam ne tey jii mu ngi ne tëdd si suuf vision am weesu jam ñaajo bii parce que jam ñaajo yow ku mënul weesu jam ñaajo moo tax say doom say say jeune di jël gaal yi di dem yow boo mënul weesu jam ñaajo kay gars yi mën a bëgg a jël gaal yi bëgg a dugg. d'accord mais euh, lu jëm ci yenn institution yi nga xamante ni ñu bari dañoo jàpp na lekk xaalis la euh, comme ay au conseil des collectivités territoriales conseil économique social environnemental bi ñu jox Idriss Seck. Hmm. ndax yow jàpp nga ne fii Sénégal toll ak jafe-jafe yi nga xam ne xam nga Idi nee na Sénégal dafa am ay jafe-jafe. Hmm. moo tax mu ñëw ànd ak président Macky Sall bien vrai que loolu mu wax sax. contredire na boppam ndax nee na lu ëpp quinze quinze mois ñooy waxtaan te boobu corona amul est-ce que jàpp woon ne li gën a taxaw mooy moom mu conseiller Macky Sall mu tas euh, institution yooyu. doog a dem mais mais ji gis nga Macky Sall bi bi bi ndóol bi bi bi bi bi bi euh, euh, mbas mi amee li mu waroon njëkk a def mooy HCCT mu di dissoudre ko au conseil kii bi CSE mu dissoudre ko même sax gouvernement da ko waroon réduire réduire gouvernement bi est-ce que xam nga li mu la mais tey Macky Sall deful loolu jël Idi Idi moo waxoon ci référendum bi ku ne wuy. da nga ne wooy moo ko waxoon. te wóoy wóoyaay yooyu moo si topp. moo si wóoyaay yooyu topp tey jii moom mi waxoon ne moom bu jiitee réew mi day dindi day supprimer CSE bon léegi loolu daf lay war ne màndarga leen la mooy sénégalais yi ñoom ñoo war a am maturité xam nga maturité bi lan la man mënuma concevoir ma nekk si réew sama doom di jël gaal di dem su élection jotee ma tëdd sama kër duma dem voté ji duma am carte électeur mais non damay ut carte électeur préparer sama njaboot ne leen nag. bu ñu naree sàcc élection yi wala ndar lu dul loolu nañu génn ci mbedd mi. nañu xeex ak ñoom nañ ñaf ak ñoom gis nga Afrique du Sud lu tax yoon am fa lu tax démocratie am fa parce que ay bakkan dañoo am ñoo xam dañoo jaay seen bakkan gis nga dëkk on n'obtient rien de grand sans sacrifice man maa la ko wax. tey Macky Sall waruñu gën a bëgg ñun Macky boo xamee dañoo bëgg suñu bakkan moom day nekk à l'aise mais suñ ko gëmalee ne ñun suñu bakkan bii bëgguñu ko. moom dina dina dina gën a xam fu muy teg tànkam alors que sénégalais yi loolu lañu ñu mënul ba pare tey dañoo nekk dëkk boo xam dañ ne dëkku diine la mais dëkk diine soo ci nekkee yow nga gis tey euh, Jean Paul euh, euh, François euh, premier bu jiite église bi mais su gisee catholique yi di nekk dans souffrance day génn wax ne lii du yoon mais ñun Sénégal dafa mel ni daal ñun dañoo yeew suñuy gët man loolu daf ma jaaxal yore ay kilifa diine yoo xam ne dañu war a wax. kon da nga jàpp ne kilifa diine jàppale wuñu askan wi. mais jàppale wuñu leen jiili jiili sénégalais buy yeewu fii ah, nga gis xale yi di dugg si gaal. te waxoo ak askan ak ñi jiite réew mi su dul di wax ak xale yi yaa ngi nax sa bopp. d' accord euh, Abdoulaye Mamadou Guissé yow da nga jàpp ne Idrissa Seck ak Macky Sall euh, dañu dañu dil ñoom ñaar. non diil sax c' est dire que Idi moo nekk dans une mauvaise posture. économique c'est pas politique ah Idi il est dans une mauvaise posture économique accepté na ànd ak Macky pour pour suqaliku xëy na. te amatul ambition. amatul mais non Idi même bu amee ambition moom ambition euh, Idi moom c'est le peuple sénégalais si boppam moo ko njëkk ray ba mu dee parce que déjà dem na wuy ji Macky Macky def na ko patron nee na Macky mooy patron mais wax ji jeex na. il est mort politiquement politiquement il est mort loolu man maa la ko fii. d' accord euh, lan ngay euh, tàggoo Abdoulaye euh, Mamadou gisee bon li may tàggoo mooy di la remercier Djily ah parce que man nag yenn saa yi sax ay nit dañ naan ma yow da nga war a di wax mais man souvent je préfère wax ak ñoo xam ne am nañu quand même ouverture d' esprit am ñoo xam ne aussi maanaam niveau niveau démocratique bi am ci àdduna moom la ñu yore. tey mun nga nekk journaliste te yow yow sa njàng weesuwul jam ñaajo <laughs> non parce que un journaliste boo xam ne yow dangay dawal benn nit lu mu bëgg ngay def yow tey man jiili xam naa ne sax su ma la toppoon xëy na suba ñu dàq la si réew ndax da may interviewé may wax lu ma neex mais am na journaliste yoo xam sañuñu ko dañuy tàgg dañuy tànn ñi ñuy invité tey buñ la invité nga nga raay ki fi ne suba ñu invité walla loolu nga fi nekkee nekk wuñ fi leneen alors que askan bi am nañu ay nit yu fi mën a jël parole di wax tey aussi may remercier ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci réseau sociaux yi di xeexal askan bi parce que tamit combat bi foofu la foofu la jiili tey man tey lu tax ma gën a sawar ñëw fii mooy tey réew mi FM ñi nekk ba Suède léegi yéeli faal bi nekk ba Suède mu ngi naan maa ngi koy déglu léegi. Mhm. samay mbokk jaww di nekk France États-Unis Canada dañ may déglu. parce que internet bi léegi mooy nouvelle forme de communication léegi nag ku yore sa télé wala sa rajo defe ne yow yaay buum yaay buum yaa ngi nax sa bopp xam nga lan la. Mhm. da nga boobu bu boobu boobu diis la bu yaatu buy metti bu oyof mooy internet téléphone mhm. nga yore ko di seet déglu réew mi FM foo toll ci àdduna bi. mais mhm. doy na. d' accord ñu félicité euh, borom kër gi di président Mbagnick Diop. moom Mbagnick ma koy <laughs> très rarement sax laa koy tudd ci rajo bi. <laughs> waaw moom Mbagnick sax moom suñu grand la tamit nit ku baax la parce que parce que moom gis naa ko c' est un homme de culture aussi ah. mu ngi ah. dimbali culture bi. te aussi gis naa même journal am bi souvent day def ay page yoo xam ne pour. pour euh, culture la pour culture la yu page yu mag sax ay posters. Ah. ñoom Pape Cheikh yëpp gis naa leen ci. bon di leen invité aussi combat SODAV bi nañ ci jàpp. Ah. que euh, maanaam. maanaam dafa mel ni ministère de la fonction publique fi ñuy fayee fonctionnaire sénégalais yi léegi waa ministère bi moom ñoom bu xaalis ñëwee ñu fay seen bopp ñu ne artistes yi ñu ne ñu ne ñu ne euh, fonctionnaires yi yéen dañu jël trois cent millions séddale leen ko noonu la mel. d'accord jërëjëf donc euh, may remercier ñëpp di remercier aussi euh, dama am gan boo xam ne dafa jógee Suisse mu tuddu Awa. Euh, donc euh, mu ngi euh, mu mu mu mu ngi mu ngi. mu ngi déglu mu ngi déglu mu ngi ñuy déglu jiiri. Mhm. donc ma koy remercier di remercier samay soxna aussi vraiment di remercier aussi sa technicien. Ablaye moom Ablaye Mamadou Diaw. Diaw <laughs> sama mbokk Haalpulaar bi Diaw neddoo neddoo bandum quoi. Mamadou Diaw Mamadou Diaw sama sa mbokk sa bon mais mais neddoo bandum xam nga gars yi dañuy foog ne mooy. nit mais neddoo bandum mooy nit. Euh, l'homme est le remède mooy nit nit ay garabam. ah kon du mbokk c'est pas du affaire u pulaar mais affaire u àdduna la daal dañ ne nit moom nit ay garabam. ah ok waaw loolu la quoi man ne da ko bànnam mooy. déedéet waaye Macky Sall ngi nii waa Fouta di dëpp ndab. di dëpp cin ci dëpp cin waaw d'accord jërëjëf mais donc euh, bu Ndiaye jàpp ne waa Fouta dañoo nekk ak Macky 100 pour cent d'accord élection yu jaarul yoon rek la ji li jërëjëf euh, Abdoulaye Mamadou Guissé moom moo jiite parti politique bi di euh, MCCS Fulak Fayda jiite kuréel gi di Omart mu yëngatu ci lu jëm ci wàllum culture moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ngeen di sànd samedi bu jot ak Abdou Khadre Seck bu ñetti waxtu jotee Mamadou Diaw Dial moo nekkoon ci wàllu technique bi jërë jëf jàmm ak